plante bi moom mu ngi ci yoon ci kanam tuuti ngeen ci am information yu leer parce que bu ma waxee ni naa porté plainte naa porté plainte parce que effectivement loolu dafa foofu ñu bërëb boobu ñu nekk dafa sacré ba nga xam ne waruñu fa nangu yenn genre comportement du question personnelle question suñu digganteeg suñu askan la ñaareel bi li nga wax parti politique yi daf ci bëri ñoo xam ne dañuy tànn ay ay ay ay ay nit ñoo xam ne ci seen i tànneef pour bu ñu demee assemblée national mën a taxaw di yuuxoog di tàccu wala ñu leen di def loo du leen voteloo loo xam ne ñoom ci seen wàllu bopp du ñu sexlu xam ne lii waruñu ko voté xam ne lii ngor ak diñute ak dëgg waru ko nangu moo tax ci tànneefu candidat yuy dem yi ci député xool leen tey niveau wu assemblée nationale nu mu wàññee nu mu wàccee ak Sénégal fu mu toll. ñi fi nekk ci ay nit ñu nite ñu am taxawaay ñu am dignité ñu bañ ku leen yàpp mais ci tànnin gi dañuy tànn ñoo xam ne pour bu Thierno Sall yëkkatee kàddu ñu yuuxu kook saaga kook alors que foofu lieu de dialogue la bu président de la république di wax dialogue justement mais dialogue bi assemblée nationale la waroon nekk nit ñi di fa waxtaan bala ñuy def loi du ñu forcer. bu ñuy def révision constitutionnelle ñu waxtaan ci ba nga xam ne ñëpp d'accord nañu lii lu jaadu la ñu war ko mën a woote pas di forcing di yóot ay gendarme